seen yaram yëngu. yëngu dëgg la mais oustaz ñun ñëpp ay góor lañu. Mm-hmm. na jigéen sol lu gàtt romb ba man yow père ñu toog ñun ñëppay xool. Mhm, mais xam moo ñuy différencier ki nga xam ne day def lu bon. Mhm. suñu maîtrise. Mhm. Ah, wax ma la ci départ bi. suñu tànk jigéen bu rafet ak a ak a neex a xool damay xool. Ah, dundal sama xool. waaw ah, mais sago. pourtant pourtant premier xool. Eh, eh, déedéet am nga am ngeen bàkkaar yaa fi yóbbu ñëpp bu sax bi du ko yaa premier xool bi amoo si bàkkaar. am ngeen premier xool amoo bàkkaar suufi. parce que yàlla xam xool defee nii nag xalaat ni ah nangam. yàlla ne la boo ci waay ndaw boo tegee nag ah yéen a ci génn nii yéen a ci génn nii oustaz yaa yóbbu nit ñi safara sànq yor caabi delloo nañ leen fa bàyyi leen xool loolu eh, baaxul loolu lu la leewul war a xool yow sax oustaz nga dangaa war a def nii kooku tegu subhanallah ndax bañ ko ko dagg ah wala nga xool wala dara ah? fii ñëppay xool ñëppay xool mën ngaa yëngu benn yoon wala waaw yërdu ñoo xam ne dañuy xool dañuy daan après mu baree tari maya maya s'il vous plaît yërdu bokk ci de loo wax nga ne benn yoon romb rek. suufum la romb dinaa la xamal ñaar. yàlla moo ko pro xëy na góor loolu moo ne ci moom jigéen saa yu ñëw sa kanam dënnam ngay njëkk a xool mais léegi bu la wane ginnaawam ginnaawam ngay xool mais l'islam la xool benn yoon dawale sa bët parce que lan moo tax da da gàttalal sa sa bu la yow yaa ma koy wax am na lu nu war a signé décret boo xamante ni jii hmm. man man man man euh, jii am na loo xamante ni da ngay xam ne li préservatif la tudd li pilule de lendemain la tudd parce que yaa ngi dox ci environ loo xamante ne ngi koy dégg à tout le temps muy dugg ci ay nopp mais lii pour lan la lii pour lan la parce que jàng léegi soo yëndoo benn yoon nag oustaz laa wax yëndu mooy yër moom yër moom intention la àndal yër ah, yër intention la am na ñoo xam ne doon préservatif am na loi am na ñoo xam ne li leen gën a neex ci kër dimbali ma ngir yàlla damaa xam ne kon fi mu toll nii ñëpp am na ñoo xam ne bëgguñu sax ñoom sax ak soxna wala kii wala kii yëddu di yëddu di yëddu ba papa donc feebar yooyu dama ne gis naa ko jël ab tabure teg ko rek le problème avortement mais nii feebar la di xool ci choléra bi di xool ci choléra bi ngeen ak jabaram ah looy xool ci choléra dafa doon yëngu kii kii dafa doon yëngu. lan waxuma ne man naa ko xool de. non dama ne dafa yëg ci kaw di xool. di xool di xool ba mu baras ci ko ak kii bi ak kii bi daa jóg ci kaw daanu damm. dafa la doon yëngu wallaahi barke bu deewoon lu muy wax yàlla dama doon yëngu. am na ñoo xam ne bëgguñu sax jigéen maanaam ñu yëndu moom mais la ñuy yëndu waatee am na na tey da ngay dugg ci tata wala <laughs> xamante ne day tafu xale bu jigéen kase ay minutes dina mu yëg boppam ah. na xale bu jigéen boo xam ne Benoît bokk ak lay teg yoonam nga féel ko ne ko soxna si looy def ni mm-hmm. am na ku góor ko ku jigéen ki tege da koy sentir ba pare bàyyi ko ci biir nekk benn naan di téye ci coin bi

yéen ñoo koy yëndoo di taxaw di ko yëndoo wallaahi am ñoo xam ne yéen bàkkaar la wa nadru ilal ajnabiyati non ñëpp am bàkkaar ñun ñu nekkee xale bu ñu gisaan yooyu jàpp jaa sangu am na ñoo xam ne yëndoo lañ gën a lu nekk mais dama la bëgg a ne oustaz <laughs> wallaahi non faut pas banaliser non laisse-les laisse-les au trois rek ah. man li ma wax dama ko teg si yoon suuf dama ne kuy yoon yàggee nga dem def leneen man li ma wax dama ko teg si yoon wallaahi am na dama ne viol góor da koy def jigéen da koy def jigéen bu ñu ne jigéen day dafa ne même yonent bi saa saa moo ne moytu leen di dégg baatu jigéen bu neex alxuraan la yàlla ko jigéen ñi déedéet dafa am na góor am na góor yoo xam ne boo yoree baat bu jigéen bu neex daf leen di daaneel ba ñu war a def loo xam ne waruñu ko defee ma ne ñun ñëpp ay góor dinañ toog. Ah, jigéen romb ñun ñëpp ñu xool. mais du tax ñu bëgg dem ba koy violé. nga ne kenn du doy nag ki jóg nag ba dem di violé kooku. kooku il doit être puni sévèrement parce li mu def moo ko tey du feebar. feebar la non du feebar. oui ma Bourma. wallaay dafa am góor ku fi violé Sénégal dem génne ay papier say pap topp toll la ay papier ñu ne dafa. dof dafa kii ñu épargne. waxuma dof fi bari. dafa am dafa am ça existe mais feebar am na góor ñoo xamante ni.

non est-ce que est-ce que antal na rythme bi. antal na rythme waaw léegi am na góor goo xamante ne man maa la ko wax dafa feebar. am na góor goo xamante ne dafa gaaw yi bànneex buy dugg ci tataaka foog jigéen ñu boppam. waaw du feebar. ankay. Ah. Eh, eh, mais oustaz Benoît oustaz. Ah. ba kon ñaata yoon la góor a sëy ak eh, kii. ginnaaw ne nga benn ngeen jóge ci inceste viol ñu déglu ko. ñaata yoon saxaaba yi dañuy ci moom di waxtaan. saa looy tàcc lan la parce ah, moom mooy sunu uswa xudwa. saxaaba yi ni ko ñun kat yonent bi ne wàññi leen lu di sëy. weer bu nekk wàññi leen saxaaba yi ni ko mënuñu ko. weer bu nekk ñaari yoon. yonent bi waaw saxaaba yi ni ko yonent bi moo nañu wàññi ko. sallallahu alayhi wa sallam wàññi sëy. waaw saxaaba yi ni ko mënuñu